li ñu bëgg a def mooy que le président de la république son excellence monsieur le président Macky Sall mu dimbale ñu lillahi wa rasuli pour que ñu mën a delluwaat suñu réew loolu moo tax ñu ñëw fii kilifa gi nag benn kilifa la ci Sénégal moom mooy président de la république bu ñuy woote moom mooy ndeyu mbili ji moom rek lañ mën a woo léegi ak lu mënti i am ñun dellu suñu réew rek la ñu bëgg leneen bin fi ñëwee ba léegi xeexuñu xuloowuñu defuñu fi lu ñaaw li ñuy def mooy nan la ñu bëgg a def ba mën a supporter suñu Sénégal lan la ñu mën a def pour delluwaat ci suñu réew ci jàmm ak salaam te ñu leen di xamal ne dafa am ay nit yoo xam ne dañoo feebar ñu ngi fi actuellement dafa am ay nit ñoo xam ne oto bi biñ ko jëlee seeni tànk dafa neewi bu toj te fi mu toll nii nii ak problème mu CEDEAO bi mënatuñoo dellu par la loolu moñu fi téye bu du toon la kon amoon nañ économie yo xamné kérok bi Coupe d'Afrique bi jéxé le lendemain mënoon nañoo jëlat auto delu mais ak problème cdao bi motax mënu ñoo delu wa on est obligé on est vraiment obligé ñu daal di toog ñëw fii nga xamné moy suñu conseil ñoo nak toog fi di xaar nak yalla